sëriñ moom di leen nuyu di leen baalu àq te di leen baal àq ñaan yàlla mu dolli noo defal ak njéggalam ci barkeb sëriñ bi ginnaaw bu loolu woyee nee na leen di dénk baaxoo dénk képp ku fi mas a ñëw. kaddu yim képp ku fi mas a te mooy li sëriñ bi daan dénk mag ñi. ñu gën a góor góorgóorlu bu baax ci ndiggali yàlla yi. te di ko jëfe sun kemtalaay kàttan gën a wattandiku mbooleem tere yàlla yi. te di ko daw. sunu kemtalaay kattan. te ñu xam ne jëfe ndigal ak bàyyi tere ci la yiwu àdduna nekk ak wa àllaaxira ci lay sotti ko ci la mucc nekkit ci loru àddina ak lori àllaaxira nekk musiba mu dal nit ci tey wala ëllëg la ëpp la cay waral mooy ñàkk jëfe ndigal ak ñàkk bàyyi ay tere man toll yi na ne fu ngeen man di toll na ngeen xam ne yàlla bam nuy digle yàlla yàlla bam nuy digal ak bam nuy tere ak bam nuy tere wóor na ko wóor na ko ne lim nu digal mën nanu ko lim nu digal man nanu ko nu tere mën nanu ko nu tere it mën nan koo ba kon képp koo xam ne da wax ne kon képp koo xam ne da wax ne li mënuma ko li yàllay digle mënuma ko li yàllay tere mënuma koo ba na la wóor ne bakkan dalaa not rek wala bànneex not la wala addina not la wala saytaane nax la waaye képp ku not bakkanam not bànneexam wan ginnaaw àddina wuuteeg saytaane lépp lu ko yàlla digal dana ko def te day jàppandi lool ci moom lépp lu ko yàlla tere it dana ko bàyyi te day jàppandi lool ci moom kon lu yàlla digle mënuma koo def do aw lay li yàlla tere mënuma koo ba do aw lay de yërmandeem moom sunu borom ëppante naag mu nuy digal lu nu mënut ëppante naag mu nuy tere it lu mënta bàyyi nañ fexe ba not bakkan not neex wan ginnaaw àddina wuuteeg saytaane bu boobaa buñ demee ci ndigal yi dananu fekk muy lu yomb di lu neex lool bu ngeen bëggoon a def tere yi da ngeen fekk muy lu jafe di lu naqari lool fu ngeen mën a toll it xam ne doomu aadama ju ne day dund ñetti xeeti dundin. day dund ñetti xeeti dundin. waaw day mel ni. day mel ni. genn dund gi. dund gi. day wommat ñaari dund yi. day ñaari dund yi. dunduk àddina dunduk addina. dunduk barsaq. dunduk barsaq. ak dunduk àllaaxira. waxtu woo góor góorloo ci dunduk adduna gi. ci dunduk addina gi képp. ci la jëfe ndigal di ne. ci la jëfe ndigal di ne. ci la bàyyi tere nekk. ci la bàyyi tere di nekk it. moo tax saa woo góorgóorloo ci moo tax saa woo góorgóorloo ci dunduk àdduna gi. nangoo yannu ay coono. nangoo yannu ay coono ngir jëmmi yàlla. wuuteeg sa bakkan ngir jëmmi yàlla. wuuteeg sa bakkan ngir jëmmi yàlla. lépp lu mu bëgg nga xañ ko ko. lépp lu bëgg nga xañ ko ko. lu mu lépp lu mu bañ nga teg ko ko. ngir sàpp ngërëmal sa borom. waxtu woo fi jógee. ba nekk ca sa barsàq doo fa gis lu la naqari de doo fa gis lu lay xatal doo fa gis lu lay sonal ba keroog nga fay jóge boo fa jógee it boo demee ci sa àllaaxira kasaalika waaye waxtu woo toppee àdduna rek doo wuutee nag ñooñu mu la wax benn yoon noflaay bu néew dana la fi gane gane waaye dana la jural waaye dana la jural coona ak musiba moo xam ne day sax ba faaw bu ëllëgee ci sa kanamu borom na ngeen xam ne gàcce nit ñaa ngi koy wax waaye gàcce dëgg àllaaxira laam waaye daanaka sa xawta am ci àdduna ndax képp ku fi gàcce dal am nañu ca seen yoon newut sa mbir soxalu leen lijjantiwuñ ko jéemuñ koo xam am na ñooy dundal te yëgunu ko waaye yowmal xiyaam képp ko fa sun borom te gàcca da lay yëkkati ba ca kam njëkkoon a bind muy aadama ba ca kum mujj a bind mu daal di ne kii de mooy doomi diw ak diw ak diw tudd diw dëkkoon dëkk sàngam moo ma daan def nangam ca dëkk ba mu dëkkoon ñépp yëgandoo ko googu gàcce kenn ku ne war nga koo daw daray àdduna warunoo jaral def lu nuy jural googa gàcce te gàcce googa lenn rekk moo nu ko mën a teg muy ñàkk jëfe ndigal ak ñàkk bàyyi ay tere kon rikk waay nañ yërëm suñu bopp buñ jël lu dul dara buñ jël lu dul dara bëgg koo jënde la gën la gën lépp àddina diis su gàtt lañ fi am daanaka du dara kon nag mukk buñ ko wecceeg àdduna benn yoon bu buñ ko wecceeg àllaaxira jee nga xam ne dañ fay sax ba faaw kenn ku nekk ci nun moo ngi nuy digal te du nu dénk tey dénk sunu bopp buñ delloo ca barab yañ jóge takk suñuy laxasaay liggéey ba am sun nu sàmmee sàmme suñu ngor suñu ngor te nangoo jàmm yàlla te liggéey bi it buñ ko fonk ba teg ko ci kaw jaamu yàlla gi. ba teg ko ci kaw jaamu yàlla gi. jaamu yàlla gi ndax jaamu yàlla gi mooy fondement bi. liggéey bi day ñëw tege liggéey bi day ñëw tege ci kawam rek. waaye liggéey bi moom. munta yenu jaamu yàlla gi. kon ku ci nekk na góor góorlu lu lew sàkku lu lew. ba mën a sàmm ngorom. ba mën a sàmm ngorom ak diineem. te fu ko jaamu yàlla fekk it. na dem defi ko. mu ne nun ñii fi toog ku ci ku ci doon ab taalibe it moo ngi lay dénk soo delloo nga fonkaat sa taalibe te bañ koo sàggane ndax mooy li nu booleeg Sëriñ Tuubaa te bu jagee suñ lépp jag waaye bu yàqu suñ lépp yàqu na ngeen ko fonkaat ak taalibe nag doonul dara day lislaam ju rafet lu may lislaam ju rafet lépp lu yàlla ak bi gërëm. lépp lu ak yonent bi gërëm. wóor na sëriñ bi gërëm na ko. nanu wóor na sëriñ bi gërëm na ko. lépp ak lu yàlla ak yonent bi bañ. nu wóor na sëriñ bi bañ na ko. te lu mu bañ kenn wóoru caa seen ab taalibe. nee na nanu wattandiku ay caaxaan. nanu wattandiku am po. nanu wattandiku xeeti mooy yàlla yépp. te taxoo xeeti jaamu yàlla yépp. ci suñu biir ak suñu bit bu ñu weetee ak bu ñu wettalikoo bu ñu soree ak bu ñu jegee bu ñu ko defee rek suñ lépp dana yiwen ne bu ñu jël mukk àdduna ak uk ñàkk soloom jiital ko ci sunu àllaaxira bu ñu jël mukk dundug yaram ak uk ñàkk soloom jiital ko ci suñ dundug ruux lu koy dundal ne yaram lépp lu koy dundal. luy ray ruura. luy ray ruura. lépp lu koy songoongal luy dundal roola. nee na ruu lu koy dundal. mooy julli. mooy woor yi. mooy askaar mooy salaatu ala nabi. mooy xiif ak mar ngir jëmmi yàlla. mooy istixfaar. mooy am kilifa gu mat kilifa. mu lay digal ngay def. mu lay tere ngay bàyyi nee loolu na nu gënal dundug yaram gi nga xam ni yu yàq solo koy mujjee ne yàlla nu yàlla dimbali yàlla defal nuy tawféex barkeb sëriñ bi ne mi nuy wattandikuloo fu ñu mën a toll di dugg ci derab gaa yi yàlla yi di ci wax lu ñu warta wax am na bàkkaar yoo xam ne bokk na ci la muy jural nit. bokk na ci la muy jural nit. mooy rey ab xolam. mooy ba dara ci leer ak yàlla leer ak yàlla dootu ci tàbbi. te bokk na ci bàkkaar yooyu. fekk xaritab yàlla. ngay wax ci ab deram loo war ta wax ci moom. mboolem nit yàlla yi jiitu woon. nañ leen wormaal. te jox leen cër ngir suñ borom. nee bu tee nag. kenn ku nekk fa nga féete. sañ nga mu gënal la fudul fa nga fa fa nga féetewut waaye nag na nga wormaal ñëpp nee na Cheikh Abdou Khadir Jeylaani nee na moo xam Cheikh Abdou Khadir Jeylaani la moo xam Cheikh Abo Cheikh Abou Hasan Zali Sajili la moo xam Cheikh Abdoul Aziz la moo xam Cheikh Ahmad Tijaani la nee na nee na ñooñu mu tudd ñëpp nag sëriñ bi indi na leen ci mbindam jox leen cër lool kon nag képp kuy tuddoo sëriñ Tuubaa te muy dëgg nee na yàlla na ci yow nga warmaal ñooñu nee na bul wax ci ñoom lu jékkul bul déglu ci kuy wax ci ñoom lu jékkul nee na téewuta féete fa nga féete ni ñun yàlla na nu yàlla dimbali yàlla na yàlla defal nuy tawféex sëriñ bi téel na sunu taalibe dara bañ cee yàqu nee na ngeen tàllal mu ñaanal leen amin ngeen ko nee na dégg ngeen ko nee dégg ngeen ko nee na dégg ngeen ko يشرح له صدرا قد فجأ بجاه أفضل من لله قد نجا آمين الحمد لله رب العالمين لا شريك له وسر اليوم نورا صالح ملا محمد صلوات الله في أبد عليه في حزبه كل به كلا قدهم إله الذي حمل واهبه لجملة الخلق ما يختار من براء أجئته جلاه وكرم تكرم أهل كل الحمد لله رحمه لجميع الخلق رحمة من شر من قرآنه قرأ رحمة من صلى على كل مسلم وترحم الخلق يا من بدأ amin amin وما قلناها هو الخلق من درر بجاه أفضل من الله قل لها سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين